jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa mbokk yi ñu ngi fii ci caaray euh, cité La Recette seet fi kenn koo xamante ne xale la dugg ci làmb takk ngemb tekki ngemb duggaat ci làmb di jàppale xale yi doon promoteur dugg si ci làmb ñëw tey waral wasaare làmb def déplacement ñëw fekk ko fii ci caaray fi mu dëkk ngir waxtaan ak moom. muy du Mbaye tey moo du Mbaye lañ seet si ngir ñu gën a waxtaan ci làmb gën a waxtaan ci lan moo ko dugal ci lii di gën a woo yeneen xale yi nga xamante ni ñu ngi bitim réew wala ñu ngi ci biir réew mi te war a mën a jàppale làmb ñu ñëw parce que làmb suñu sport la amuñu lu dul làmb Modou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay jéele ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yeneen bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa wasaare. Mm-hmm. waa wasaare suñu làmb ñëpp mm-hmm. lu ko dere ci directeur ba ci directrice bi ñu ngi nuyu ñëpp mm-hmm. ah comme ni nga ko waxee jile rek ñu kontaan ci seetsi bi ngeen ñu seetsi ah, Modou Mbaye benn xale la bu nekk Allemagne tuddoon CNG ngéwél gi doon bëre ba yàlla def ko mu yóbbu ko bitim réew mu dem bitim réew doon daan dooleem ñëwaat nag xarem nekkaat ci làmb ji mu war a jàppale waa doomu réewam waaw. bi ngay bi ngay jóge fii nee nga jaar nga ci làmb. Mhm. Euh, lan moo la dugaloon ci làmb. waaw euh, dugg ci làmb moom loolu boo ma ci laajee dama ci sawar ndax dañoo amoon suñu ay magu làmb yu ñu dëkkaloon. Mhm. ñu bokkoon benn koñ. xam nga xale tout le temps lu muy gis da koy bëgg ci lu baax. Mhm. te làmb ku na xam na ne sport bu baax la. ndaxte ñaar ngi ci même boo ci déggul daale wala lekkoo ci xaalis dañ ci am wér gu yaram. tey di nga ci mën a defar sa bopp leneen ak leneen ndax sport bi ngay def loolu santé la dem bi ngay dem ci géej gi di entraîner nag say moroom du foo am nga ci armation boo xamante ne nii yaa ngi koy mën a aaree sa bopp bu la benn sàmba booy bëggoon def leneen kon làmb lu mu ëmb dafa bare du nit rek nit bu ciy dugg boo mën nga cee xalaat da cee war a teral say waajur da cee war a nekk champion mais am na ci leneen lu mu la mën a dimbalee même boo ci nekkul champion te loolu yëpp làmb mu ngi koy def ñun nag bi nekkee xale gis ay ku ci mel ne ay Siré gis ay dun xaaf yuñ bokkaloon koñ gisoon ay Youssou Diop ay Alim Fall ñooñ ñoon tette ci làmb ñu leen doon topp ci mbapat boobu mënuñu dara ba yàlla def ñi màgg di leen topp géej di entraîner ba am amour bi di contact di dem ci mbapat yi di bëre commencé di ko di jël di jëlantu ay pot meew yu daan teg ay mbiskit ay suukar xam nga yooyu boo ci boo ci duggee di am amour bi nit ñi di la ci commencé di tudd da nga koy gën a bëgg waaw loolu bokk na ci li mu dugal ci làmb ba ñu egsi fii tey mm-hmm. waaw euh, xam naa ni sax dégg naa ci sànq ci ci format ci weewu bay ñu ne mos mm-hmm. ngaa bëre arène ba bëre nga grand combat ci wax waaw euh, ku ci mel ni Ndeye Ndiaye Tyson moom moomu mu tuddee CNG ngéwél gi ndax bi may dugg ci làmb di commencé di bëre ay mbapat di dem ay mbapatu yaaram géy di fa bëre kër Mbay Fall jël naa ko ñaari yoon di dem ay mbappatu Père de ak ay yeneen ak yeneen ci biir àll bi boobu bu naa naam rasa la ma doon woowee xam naa war ngaa xam bu naa naam rasa waaw boobu rasa yi ma defoon duñ xaaf moomu tuddoon bu naam rasa mhm. bi ma Ndey Njaay wutalee bi ma xamee ci mbapat yi dégg ñu may tudd mu woo ma ni ma daf ma bëgg a jox combat man ko amaguma licence moom ma defaral licence léegi bi may photo dama daggoon sama rase yi léegi bi ma daggee sama rase comme dagg naa ko te bu naa am dafa defoon ay njëñ léegi ci la ma sama xel jox est-ce que rase yi su ma ko dinee at bu ma rase bi ndax tur bi dootu na méngoo kon dootul mën a ànd ma wax ko Ndeye Ndiaye mënu ma pourquoi nga tuddee sa bopp waa CNG ma ne ko mais li nga wax noonu xel la de loolu moo indi tur CNG ngéwal gi boobu noonu laa tuddoon Ndeye Ndiaye dafa ramal licence ma jox boobu dama tuuti nag mu ñëw ko ma jox dafa étalé ma daan ko deuxième combat bi mu jox ma Ousseynou Ndiaye troisième combat bi ñu jox ma bu ci dugg xam naa moom bàyyi na bëre comme man. sama cinquième combat ci leen ma joxee ku ñuy wax baax yaay production moo ko tëggoon Estade Ndiarème mais boobu Bac Seras moo ma daan. waaw fa leen bëree ga Bac Seras junior. junior moo ma daan. Mhm. grand combat boobu après ci la ma joxaat beneen combat ku ñuy wax deuxième ré bu ginnaaw raay équipe Bac Seras. ma daan ko après deux mois laa ci teg dem Allemagne. Mhm. waaw. nga dem Allemagne nekk fa doon liggéey waaye li ngay liggéey yëpp wane nga ni sa xel mu ngi ci làmb. Mhm. bàyyi woo làmb benn yoon lan moo la dugalaat ci làmb bi nga bëgg jàppale xale yi doon promoteur tëgg làmb. waa parce que bi ma demee Allemagne man doom géwél laa comme ni ma la ko waxee. Mhm. sama ay mag dañuy tëgg ci aar lan nekk. comme ñoom bi nekkee ci aar te man bi ma juddoo ci ay biir sabar laa juddoo. doon tagg di taggale sama nijaay yu ñuy wax Modja Mbaye maa ngi ko nuyu à passage programme boobu xale bu ndaw laa mhm. boobu dugg nga ma ci làmb mais après dama ko mujj bàyyi dem jàng métier bi ñuy wax électricien auto mhm. ba mokkal ko après bi ma demee Allemagne sama mag bi ma yóbbu ñoo bokk ndey ak dafa amoon ay tournée yu mu doon def Allemagne mhm. ci la ma boole woon ak ay yeneen gel fecckat yu ñuy wax Awa Sow Hélène Sagna euh, Ndey Ñas Maam Jaara Mbay sama rak ñu ànd dem biñ demee nag doon fa liggéey ma koy jàppale ci tëgg jémbe beeg affaire yooyu noonu mm. boole ko ak sama liggéey bi may def bi ma demee ba ci biir ma am ay xaritu tubaab yoo xamante ni sama ay xarit la léegi ma bëggoon fa taxawal benn société boo xam ne damay organiser ci wàllum concert musique mm. di jële ay artistes dëkk ak dëkk di leen indi bi ma taxawalee société bi tuddee ko CNG étoile production mm. léegi bi ma ko bi ma ko taxawalee ba pare ci laa ci organiser benn diina de gala boole ci ñeent artistes kenn ki maa ngi ko jëlee woon Canada ñetti maa ngi leen jëlee biir Allemagne bi ma ko organiser ba pare nag ba soirée bi réussir léegi loolu moom ma inspiré comme man mbër laa woon te sama xel tamit mosul jógee ci làmb ji man comme léegi def naa lii mu jàll man war naa mën a taxawal ay combat Sénégal ci laa woo ku mel ni Matar Ndiaye mm-hmm. maa ngi moom ñu déggoo ci ci laa taxawal Euh, journée bi diggante gàkku 2 ak Boy Seye numéro 2. Mhm. nangu la ak téegar ci lañ ko taxaw loolu moo indiwaat ci làmb ba pare am naa ay nit ñu baax ay partenaire ak sama ay xarit yoo xam ne ñu ngi danoo toog xalaat bi ñu seetaanee làmb war nañ ci mën a indi def ci lenn war nañ mën a jëlee làmb ci un yóbbu ko ba ci diis mhm. loolu mooy luñ tax a jóg te incha allah noonu lañ koy defee. ak Tigre bu Lamsaar. waaw loolu rek day na grand combat kan ñoom ñaar kan moo ci bëri. Gackou 2 ak Boy Seye ñooy grand combat bi mm-hmm. mais lépp grand combat la. Mm-hmm. waaw lépp grand combat la parce que def nañ ci quatre drapeaux yoo xam ne ay grand combat la. Mm-hmm. am na ci yoo xamante ne jotoon na taxaw mais lu ko yàqoon mooy mbas bi. mais am na ci yeneen combat yoo xamante ne ni mi ngi ci biir. taxawoon na mais ñoom jotaguñu seen avance ndax moment bi ñuy jot seen avance ci moment boobu. ci la mbas mi am ci la CNG ajee affaire lamb yeeg affaire yooyu. Mhm. mais ñoom gàkku de nongolo ñoom ñoo jotoon seen avance avant mu doon ñëw. Mhm. mais am na ay combat yu gën a neex yoo xamante ne ni ñu ma koy wax ku ci mel ni Liss Ndiago at at at at at si at at bébé sita bu dëkk Géejawaay. Mhm. ñu ngi ma koy wax. incha allah dinañ ko ci dugal. at mengu mbooro numéro 2 at ay yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi ko fi Bou Siteu waaw eh, eh, eh, Bou Siteu ñi ngi ma koy wax léegi lan ma am ku ma doon yónnee message mhm. di ma wax mi ngi waxtaan ak ñoom man maa ko yebaloon mhm. ñu ngi ciy waxtaan xam naa ni fii ak ay fan yu néew incha allah dinañ ci wasaare suñu làmb dina ci gën a am lu leer. allah bu soobee yàlla. mbokk yi ñu leen wax rek làmb sport la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mais xalaat ngala gan la boo xamante ne day dugg ci làmb yàgg na ci làmb waaye euh, roi des déggal euh, waaye li nga xamante ni mooy promoteur làmb bi lu bees la ci moom. Hmm. te nag làmb moom dafa doon loo xamante ni ku ci nekk mën na cee jariñ combat boobu bàyyi leen ko rek mu yeggale ko sogam yàlla suñu borom mottali. amiin amiin mais est am nga ay partenaires yu lay yu la accompagner ci ci ci waaw am na ay quelque partenaires yu doon waxtaan dëgg fa yàlla cat dañ ca moom bu reyul rek simple. Hmm. am nañ ci ñaar ba ñett yoo xam ne ñu ngi doon wax ak man pare woon nañ pour jàpp ci te ba léegi pare nañ tamit pour jàpp ci. waaw mais jotaguñu woon. jotaguñu woon signé contrat. mais fi ñu doon signé fu ñu bëggoon dëri la loolu commencé ko waroon ci liggéey waroon signé contrat yooyu. ci leen jékki-jékki dégg CNG aj na affaire yi. kon foofu signé contrat mënatu fa am. ku ci mel ne tamit sama sama yaay sama rakk yaay Ndiéye Mbaye maa ngi koy nuyu di ko gërëm. moom PETSEN lay liggéeyee. Mm-hmm. boolu woon na ak ñoom. tamit ba ñu waroon cee jàpp. Mm-hmm. kon daal ñu ngi am yaakaar di ko di ko waxaale fii ci waa wasaare suñu làmb. Mm-hmm. na sponsor yëpp ñëw jàpp lañu. parce que doomu géwél bu duggee ci làmb képp kuy doomu géwél. ñu dëkk ndaat Kajoor Fara Mareen yi yëpp. dañoo pare woon ñëw ngir jàppale seen seen géwél parce que seen doom. seen rakk seen xarit moo dugg ci dara war ko jëmale ci kanam te yow xam nga ni réew mi lu fi baax wala lu fi neex ba ñëpp di ko coow xam nga ni ngéwél loxo mu ngi ci biir du dëgg ngéwél gi la kon nag bu doomu ngéwél day organiser lu mel nii mhm. yaakaar naa jili waru yomb waaw déedéet képp ku ñëw jàppale CNG étoile production uh-huh. ak sponsor bu mu mën a doon lépp loo bëgg di ko jaay na la wóor ni waa wasaare ma dinañ la ko wasaareel te CNG dina la ko uh-huh. jaay ba li nga bëgg di ko ci am incha allah yàlla na ko suñu borom mottali amiin waay ñaata journée nga bëggoon tëgg waaw bëggoon naa fi def na ba deux journées uh-huh. parce que maa ngi doon waxtaan ak euh, ñaq jariñu jiboo juboo nan maa moom déggoo nan digganteem ak Modou Anta parce que moo ko ama neex laa bëggoon te ama neex am na combat ak Valdo moom laa ko proposé léegi maa ngi koy jaale Modou Anta dafa am ku nekkoon seen écurie yoroon leen muy seen entraîneur di grand Omar. yàlla jëlee ko fi maa ngi ko koy jaale di ko wax yàlla na ko suñu borom yërëm. taxaare ko àjjana. kooku bu mu fi bàyyeekoo dafa dawal tuuti rek magu kooku. Mm-hmm. tamit wàññeeku. ci mam weer mu nekk lu metti ñu leen koy jaale di wax suñu borom moom bu bëggee ñëppay ñaax léegi la nee na ma loolu moo tax joxuma réponse parce que ci loolu la nekkoon ci dëj beeg affaire yooyu xam nga te lépp seen na Fall la ñoo bokk kees kon moom bu ko loolu dalee Modou Anta la dal doguma la may jaale waale Modou Anta di mm. ci turu wasaare làmb ñu leen di jaal jaale bu baax a baax baax yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ak mboolam ñu fa fekk barke yonent bi waaw bëgg naa moom ñax jariñu nag. Mhm. waaw moom laa koy wax nee na teytu guddi dina dem kër prési dina ma woo ma waxtaan ak prési mu jox ma réponse su digganteem ak ñax. Mhm. combat boobu bëgg naa tamit mois de avril wala après juin. Mhm. incha allah. combat yi moo la koy monter wala yow yaa koy monter sa bopp. xam nga boo nekkee mbër laam. da ngay xam man maa ngi Allemagne mais teewul ba léegi maa ngi suivre laam. mais ku ci mel ni Matar Ndiaye moom moo taxawal combat bu waxtaan neexee wax dëgg te la. moom moo ma gën a xam mbëri. ndax bi may bi may taxawal loolu noonu ku ci mel ni trompeur ak ay naat yi. sëñ Mbacke biñ ci waxtaanee dañu ma jëlee lépp teg ko ci loxo Matar Ndiaye mu monté combat yi avance moo jël. yeneen ak yeneen moo ko def. du dëgg kon moom bokk na ci ñuy taxawal journée yi mais Modou Anta ak ñàkk man maa xalaat. Mm-hmm. waaw. combat bu bu neex lay doon. te xam naa ni tamit dina neex amanteur yi ak supporters yi. Mhm. waaw. Euh, sa mbébét ci làmb lan sama mbébét ci làmb euh, bokk na ci ma fexe ba yóbbu làmb ci kanam ba mbër di am un milliard. yàlla na ko yàlla def. lu nekk sama xol nag laa lay wax parce que mhm. dama bëre ci quarante mille. Mhm. ba ci avant grand combat quatre vingt dix mille. cent mille la ménagère di dagg dix dal lay jox quarante cinq mille joxal la quarante cinq mille quarante mille dal lay jox vingt mille dix neuf mille yi desee la dix neuf mille kon ñun xam na man xam naa li ci làmb xam naa ni làmb baaxoo xam naa lu làmb aajowoo mbër dafa metti lu nekk ci ginnaam dafa metti mbër boo ko joxee cent millions léegi léegi bu génnee dugg këram lu muy dese du mat dix millions kon làmb dafa metti kon ñun war nañoo mën a jàppale làmb ba mu jëm ci kanam jiile ba mbër di am un milliard wala ay deux milliards comme ni ko football bi di fayee. parce que lamb suñu sport la. Mhm. jéggaani wuñ ko fenn doo dem ci àdduna bi ba gis ni Sénégal di bëree beneen àdduna du bëree noonu. parce que di nga dem ci yeneen dëkk yi sax gis ni ñuy bëree mais ñoom bu ñu ñëwee seetaan làmb senegal bu Sénégal gi moo leen di gën a neex. Mhm. parce que bagage yi ci nekk nekkul fenn kon lamb waruñu seetaan muy dee. waruñu seetaan muy ñaaw waruñu seetaan ñu koy salteel waruñu seetaan dara da nga ko war a defar ba mu rafet ba nduróog yeneen sport yi ci àdduna bi mhm. mooy lu ma tax a jóg bi ci des nag tamit dama nekk promoteur boo xam ne doomu caaree laa mhm. yow gis nga fi nga ñëw xam nga ni caaree mel mhm. kenn du la ko wax ñun caaree lan dëkk ci yee bi na lu dul caaree bu ñu neexoon lu ñu am ñu génn feneen ak feneen mën nañ def comme ni suñu morom ni def doom Nord Nord Foire wala Almadies feneen ak feneen jël fa appartement toog mais loolu tax ñu jóg danoo bëgg ñu lu ñu am ñu koy bokk ak doomu caare yi mhm. parce que caare yi tamit dëkk la comme dëkk yëpp mhm. gox la comme gox yëpp mhm. xëy na gars yi ñoo seetaan mu xaw a ñaaw defaruñ ko nun ko war a defee wala suñu suñu suñu suñu suñu suñu ñun jiite excès gunu caare pour def ko pour mu mel comme yeneen gox yi te loolu dafa jóg ñun doomu caare yi bu ñu xaar gouvernement bu ñu xaar kenn nan ko jóg joobal ko suñu bopp fi ñuy dëkkal ñun waa doomu caare nañ jóge foofu te xam ne ñun nekkuñu foofu caare mhm. du band salte yi ñoo fi dëkk yaa ngi dégg du def kot lu bon am na ñoo xam ne dañuy jéggaane sax ñëw du ko fi def ñaan caare te caare ku fi dëkk juddoo fi da ngay doon Baay Faal doon Yaay Faal mhm. nangoo liggéey doon Baay Faal kenn du la séntu ci yi ñàkk faare yi kon ñun nan defar suñu caare li ma tax a jóg nag mooy jàppale doomu caare promoteur la mhm. ma fenn caare mbooloo laa nekkoon mhm. ñàkk jariñ ñoo bokkoon écrit mhm. mais bu ko muur anta daane maamu daan ko sama yoon nekku ci parce que damaa bàyyi bëre mais bàyyiwuma làmb est-ce que dégg nga wax ji am na solo xaayaan dégg séeréer man damaa bàyyi bëre takk ngeem laa bàyyi mais bàyyiwu ma laam kon man bu ma nekkee ci làmb pour jàppale làmb muy Modou Anta di ñaq di keneen ak keneen ñoo yem ci man kon dama jóg pour mbër yëpp kenn ku nekk di sa bopp ci Sen Étoile Production man ma gis tamit sama bopp ci ñoom loolu moom ma tax a jóg jiile. Hmm. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax moo Modou Mbaye euh, di kontaan bu baax a baax ci dalal bi ndax wax ji am na solo trop tey làmb am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di séentuwaat am na yeneen promoteurs yu ñëw am na yeneen combat yoo xam ne taxaw na. Euh, combat yu bëree bëree bëri taxaw na te fi mu toll nii ñu ngi ñaan yàlla nañu yeggal ak seen sago. ñoom ñëpp parce que làmb dafa toll foo xamante ni ku ci nekk daf cee war a jàpp daf cee war a jàpp ñu jàpp ci. waaw ñuy wax ni rek euh, promoteur yee ngi ñëw làmb fi mu toll nii ñu ngi ñu am njort bu rafet ba tey ci làmb ndax làmb yi taxaw daanaka mun naa ne bari na ku ci mel ni Gris ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye daanaka maanaam mun naa ne taxaw na. Gris Bombardier Eumeu Sène ki nga xamante ni mooy mobile bu Grand Yoff ak euh, Bour Sine bu Bawol Garga 2 bu Dóor Dóoraat ak Mama Lamine bu bu Langsar ak ñeneen ndaanaan yi nga xamante ni ku ci mel ni Franc euh, ak Tyson 2 yeneen ndaanaan yoo xamante ni fi mu toll ni loolu dalay leer ni ay combat yoo xamante ni macha allah mun naa dekkilaat làmb mun naa yóbbuwaat làmb fu ne ku ci mel ni euh, rëg-rëg ñu ngi koy wax mais Reug Reug ñu ngi koy wutal ay mbër yi jël leen Reug Reug xale la boo xamante ne wane na boppam ci làmb Reug Reug ku ko fi bàyyi rek danga koo ragal bu Bombardier demee ba nar a jël Reug Reug ngir bëreeg moom yokkute làmb la ñuy teggi Reug Reug aka daw Reug Reug aka moytu Reug Reug nañ ko jël mbër la combat yu mel ni Reug Reug Sa Thiès askan bi euh, bëgg nañ ko ku mel ni Sa Thiès Garga Mbossé askan yi bëgg nañ ko ku mel ni Sa ak ki nga xamante ne mooy Yékini Junior askan bi bëgg nañ ko kon mën naa ne Sa Thiès moom fi mu toll nii dafa tëddee njaaxaanaay fi mu toll nii li li ma doon wax nag bu ràmbu la nag yaa koy daw waaye dawul benn nag ku ci mel ni tamit ki ma jël si keroog sampion bu mag boo xamante ni ma nga Jurbel muy tanoor bu Jurbel Jurbel Tanor bàyyi leen ko xel ci làmb saar la nekk waaye Tanor champion la ci làmp ndax boo déggee li mu wax def treize victoire am trois défaites moom it njool la boo xamante ni macha allah am na gabari bi am na taay bi ma lay bu baax a baax a baax Modou lan nga bëggoon wax loo xamante ni laajuma la ko te bëggoon nga ko wax. waaw jili man kontaan naa kontaan naa ci seetsi bi ngeen ma seetsi parce que àdduna nii la bu ñëpp doon def ni yéen yaakaar naa mbër euh, mbëri ndaw yeeg mbëri mag yi ñëppay lekk ci lam xaalis ndax yemale ngeen mbëri yëpp maa ngi seetaan seen émission damay toog ba Allemagne di seetaan yi ngeen di def bàyyi woo leen xàmme woo leen amat seen xàmme woo leen yaaw jaal kon loolu liggéey bu rafet la da leen di santaat di leen gërëm noonu ngeen koy defee ci pour promoteurs yi ndax man ku bees laa te damaa taxawal ay journée rek ngeen bëgg cee jàpp hmm. ba ma mel ni ñoom Ligue ak ñoom Aziz Ndiaye ak ñoom Gaston incha allah am nañ ci yaakaar bu rafet hmm. kon yéen yemale ngeen ñu ngi kontaan ci yéen ñëpp di leen nuyu di wax seen sit bi yàlla dem ba nekk télé yi ñuy dégg ci àdduna bi hmm. ci barke Seexul Xadim may gërëm sama famille yëpp di nuyu Balla mbay ma nuyoo Balla mbay nuyu naa góor ñi mm-hmm. bu ma nuyoo aw Seex mbay nuyu naa jigéen ñi mm-hmm. di santaat sama soxna bu baax di gërëm sama ay goro waaw neex ceeb waaw waaw du du nuyu maam jaara mm. ah couture poroxaan boroom boroom place bi fi ñu nekk nii mm. ah maam jaara buso mm. du nuyu ñëpp du nuyu nag koo xam ne spécial ci man la jiili dama bëgg mu dégg lii muy sama doom baay la mais di sama seex papaam ak sama papa bokk ndeeg baay ñu koy wax Ndiombay ñu magante une semaine du nuy jabaram màgget mais njombay day sonn ci man xamul ndax maa ngi jógee kaw heure bu may ñëw mooy taal otoom ñëw jël si ma. ndeysaan boole kaag bu ma banquee mu yëkkati xaalis di ma jox. ndeysaan sa guddi këram laay ferek. du ma reer. Mm. te ñëwul. Mm. du ma reer te jab du ma ñëw. du mm. su ma ñëwul jabaram du ñemee yàq reer bi dan may xaar ba ma ñëw barki Seexu Xadim kon maa ngi koy gërëm di gërëm sama rakk yi nekk kaaw yëpp ku ci mel ni Lala lak si kiri mbër la woon bu bàyyi ma teel ko dagal ticket ni ko dawal ah, ah, ak ki ñuy wax Seex Mbay ah mi ngi France. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. du nuyu Xaadim Mbay du nuyu sama jabaru copain yi nga xam ne dañuy togg añ di ma tubal ko ci mel ni Boussa seen jabaru Seka. maa ngi koy nuyu du nuyu ñoom bàcc du nuyu suñu groupe temps booy bi nga xam ne danoo taxaw ci jàpp étoile production nga xam ne. ñoom ñëpp ci staff bi la ñu bokk. Mm-hmm. ah may gërëm ñëpp di bëgg ñëpp du nuyu waa Kaaw. ay grand Ousmane ñoom Mariam Diallo Hélène Sagna du nuyu Hélène Sagna tamit ku baax xam naa du ñàkk ngeen xam ko fecckat la woon bu mag a mag a mag fii ci Sénégal mm-hmm. mais da bi may def sama soirée bi mm-hmm. Allemagne dama ko ko tuddee mu yëkkati xaas bu bari jox ma te sasuma ko loolu ndax tudd gi ma ko tuddee moo yëg bi ma yëg ak cër bi ma jox te ku ma jox cër la te ku ma jox cër ma delloo la ko waa man alal taxul ma ànd ak kenn man xam lu may ànd ak nit jiili mm. jàpp bi ngeen ma jàpp gis nga waa wasaare mm. dama leen a téye nii parce que te incha allah dinañ gën a liggéey ci ay affaire mm. muy extérieur di Sénégal waaw te loolu mu ngi suñu kanam te man nit boo may jàppale rek dama koy xam te lii ngeen di def mooy da ngeen may jàppale mm-hmm. kon maa ngi di gërëm ñëpp di nuyu sama yaay di ko wax guddal fan di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana mm. ak sama rakk bi ñuy wax maam Fatou mbay mm. ak képp kun fa fekk di nuyu sama rakk Xaadim mbay mm. ah di béggee ñoom ñëpp maa ngi béggee ñëpp daal kulim juum maa ngi béggee ñëpp jaa ngeen jëf Baye Fall mm-hmm. maa ngi nuyu suñu waa Allemagne waa Jaamaani di leen wax liba loyta Modou Mbaye sono grossa alla meine Freund alla meine Freundin mm. ich liebe Deutschland jaajëfate <laughs> jërëjëf am na solo bu baax a baax a baax ma koy jaajëfal bu baax a baax moo du mbay di siyaar sama papa bu baax a baax muy père Ousmane Diouf mi nga xamante ni moom mu booleeg moom bu RDV ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam te mu ànd ak wér ba bépp mbébét bi nga xamante ni am na ko suñu borom kàttanal ko dooleel ko Père Ousmane suñu papa la Père Ousmane maa ngi lay nuyu bu baax baax la suñu papa la ku ku yaatal liggéey bi la mm-hmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ngeen jëf